tegg xanaa xam nga dugg ci biir xanaa xam nga dugg ci biir wala jaru ko boy boy boy arrêté tuuti génnal tuuti wala boy génnal ci sang bi ki day film waaw da ngay film da ngay stadi boy dugal dugal waaw waaw waaw yaakaar naa ne jox ko micro mbokk yi ñu ngi nga xam ne nii moom mooy xayra kooku mooy euh, Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Modou Bousso Ndiaye Serigne Mourtala mu Serigne Modou Bousso Ndiaye waaw mu Serigne Fall mu Serigne Amadou Bamba Khadimou Rassoul man nag taalibe bi ñuy wax Ibrahima Diop borom Kajoor production nag mu am da yëngu ci wàllum tabax ñu ñëw nag li nga xam ne ni moom mooy xéwal yooyu ngeen seen noonu defe loolu la ñuy waxtaan ñun. yàlla yàlla na nga yàgg te wér teraanga gi li mu wax dégg nga ko. amiin nee na fu mu egg yaa ko fa àgg ni mu mel yàgg ko mel la sa doom ji sànq daa seede seede gu am solo ci boole booleen boole. ba yàlla dogal dem na fu na ci àdduna waaye nee na demin bi ma gën a dem bi ma gën a neex mooy fi sama maam demoon naaree jiixi jaaxa gis du nu mës gis muy màkka nga boole leen nee na man su Ibrahima meloon na neen waxuma duma am gàcce ndax sëriñ bi du am ko am gàcce waaye bu boobaa dina miti ci man waaye ba nga leen di boole daa yàgg Ibrahima doon ci taalibe di dox joxi taalibe Mbàkke nag nii yëkkati bi nii sax Ibrahima sànq mi ñu koy wax di diital na ko waaye noo ngi ñaan nga yàgg fi waaye ñoo ñaan nag nga ñaanal ko ndax lii mu def bëgg naa dem ba buy ñëw ci tali bi ñëpp dégg riir gi ndax yow la am yow ku la am tiitaroo la sëriñ Moutala yàlla na nga fi yàgg ci léegi laa fi gis bàyyi xéewal ma ak moom lool mu nekk nit ku baax léegi la damay sax xam nga ci gi ngeen ñëw ma ko kooku mooy kan mu ma mooy jàmbaari Sëñ Tuubaa ji waaye Ibrahima mii ak ñi mu àndal ak ñun ñëpp noo ngi ñaan nga yàgg fi yàgg koo taxawee nee na nu mu mel yawa lu mu am yawa fu mu jëm yawa yaa ko jàppale ndax nag ku gërëmul nit doo gërëm yàlla ndax suñu borom lu muy def lu ne ci nit la koy jaarale kon nit da koo fonk mbàkke nag lii gétt gii bëgg na mu doon ay gétt gétt man nga ko Serigne Falloy sa maam man nga ko Serigne Toubaay sa maam man nga ko nit ku ah, sell nga góor yàlla yi ne fii yëpp ak lu mbàkk yëpp dañu lay gërëm ndax loo am jox nga leen ci loo am bokk ko say mbokk mbàkk yàlla na fi yàgg jëlal yàlla na la yàlla na la cat seexu ci dara jëy Serigne Touba ñun nag kii rek la lu de lu mu am bokk na ko ñun lu mu am mi ngi ñu ci dimbali Mbàkke ñoom ñaan ci dara ji Serigne Touba yàlla na nga gudd fan yàlla na nga am jàmm jërëjëf ñu loxo si bi ñaan Macky Amin Mbacké Amin Mbacké yàlla na lii doon asaka yi li ngay def allahumma jërëjëf Mbacké jërëjëf Mbacké sagu noonu tiitaru noonu jërëjëf Mbacké c'est bon c'est bon azote. mu mel ni kon yaakaar naa gis ngeen jëf ci Ibrahima def ay ànd ak ànd ak ay ay mbokkam nijaayam nekk nii daaw ñu àndoon ñëwaat fii ren yàlla dogal ñu àndaat fii yàlla nañ ko yàgg ànd barke yonente bi sallallahu alayhi wa tey bu amoon looy wax euh, ki nga xam ne nii moom mooy euh, euh, Ibrahima Diop ak Serigne Mourtala Mbacke yan kàddu lay doon yow mi nga xam ne yow yaay nijaay Ibrahima Diop mu ànd ak yow Dakar sant yàlla rek ak am mbégte ah, di ko ñaanal aussi yàlla lii mu gën a yokk mu gën a jëm kanam ndax ah, ki mu ah, ko ko xam ne sëñ bi sell la eh, di ñaan yàlla lii mu gën a yokk rek waaw comme daaw ñëw nañ fii fekkee ko def ko ren ñu ñëwaat fii ñu ñaan mu yokk Mm-hmm. gën a jëm kanam mm-hmm. déwén ay déwén mm-hmm. i te saa yu ñëwee rek mu gën a mu gën a mu gën a yokk mu gën a yokk waaw ñu ko ñaan suñu borom bi ndax euh, dara waaw kii nag daaw daanaka presque mbir mi yëpp wax ji yëpp moom moo ko doon kii moo ko doon wax waaw ndax moom sunu sunu sama frère la sama rakk la sama turandoo papa la sama lépp la kii mooy suñu lépp daal. waaw ñun suñu amee kàddu. moom moo moom moo ñu jox kàddu. kon lépp moom la day delluwaat ci moom rek. am solo euh, kon bàyyil ma ma jeexale ko si moom euh, fan la ñu tur bi. maa ngi tudd Cheikh Wade Dóor Wade. daal di nuyu ci moom ak yaayam ndey ak baay. man ñu tuddee ma ah, yar ma. yàgg dund suñu kanam te daaw nag ñëw nañ ci ñëw rafet waaw yàlla defal ñu ay teraanga bi bu ñuy ñëw yàlla teraanga bi waaw li sëñ bi wax dégg nañ na ko boppam yàlla ko yàlla bu sëkk cat sëkk ci am nag bokk na ko ay mbokk te daf sa xër yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla leen di gërëm di gërëm ñu fi teew ñëpp asalaam jërëjëf tey en tant que jarbaat boo xam ne seen jarbaat seen mbokk seen boo xam dégg nit Vesta dafa am kàddu sëñ bi wax kan lii bi ñu koy def maanaam da ko doon jéem muy tëb mhm. daan taxale ji ko jënd yaa ngi dégg daan na yenn dara dara bi suba ba ngoon mhm. yaa ngi dégg ñuy dem di dem ba tey boo xoolee ay képp lay indi loolu tamit defe naa dafa mel ni kon ànd bi mu ànd ak Serigne Mourtala bu jibal ko ba man dafa mel ni yéen ñi di ay ay waajuram tey boobu ànd lu ngeen ci soññee Ibrahima. bon yokkute rek waaw ba mu góorgóorlu rek parce man euh, man man dama am tuuti nekk ci moom moom daf ma bëggal bopp bu muy def ah mais bu ma tàggul sax dina def ba pare ñëw ma ak ah, ndijaay lii ak lii ak lii dama ko ah, sama xalaat lii nag ma di ko rafetlu yëpp yokkute la waaw vraiment ànd ak sa euh, sëriñ lay teg ci yoon lay teg ci yoon nga ngay yokk ba ci tere laate di tere say mbokk tere ñëpp waaw wax bi benn la bu koy ñaanal daal mu bëgg ak yàlla fa ak Ibrahima daal am na kilifa ci deret waaye am na ko tamit ci diine daa mel ni soxna Gueye waaw am na ko ci deret waaw am na ko ci deret Ibrahima nag euh, yàlla da ko bindee xol bi moo mos a rëy waaw xol bi même bu jël xarum tabaski sax. waaw ah, xar moo joxoñ xeeb na ko. xeeb na ko te kuy def lu baax la. nga def ay nijaayam nga def suñu ñëpp. waaw waaw ñun ñii wax dëgg mu jox ay xarum tabaski. macha allah yàlla na yàlla te xam na ni. ah man waaw man mii damay jox xarum tabaski. Mm-hmm. te ma xam na ni man mën naa jënd xarum tabaski. Mm-hmm. waaye nag. yàlla xeeb li kon mbokk yaakaar naa ne comme ni ngeen ko dégg rek ni ko Ibrahima ni ko sëñ bi waxee wala boog ni ko mbokk yi waxee ak ay nijaayu Ibrahima Diop mu mel ni liiru jaan a ngi fii ci biir nag yi liiru yaakaar naa ne lii moom xam nga ko. nag. waaw ah, lii dafa rafet. lii dafa rafet ndeysaan ah. yàlla na ko yàgg man. mais tey dangaa ngaa jooy ba sonn ndeysaan. waaw non non sama xol sedd rek baax rek am solo. lii dafa rafet. tabaarkàlla macha allah. ah nag yi ah. ak 63. 63 nag. ak 30 ak nag 63. 63. ak 30 xar. waaw waaw. tubaarkàlla macha yàlla na ko nan ko ñaana rek mu yàgg koo def rek. sëriñam de kontaan na ci moom. waaw te ñun kontaan na ci moom ñu ànd ak moom. kon kañ li koy ñaanal rek. yàlla def ci benn la ko commencé woon wala benn xar. waaw dégg naa benn la ko commencé woon benn xar. benn xar ak benn nag. da ko commencé woon tubaarikàlla dem mu yokk daaw mu indi ñaata dégg naa 30. 30 ren mu yokk ko daaw yaa ngi fi woon kon. waaw man nag ren laa ñëw. sama waay la sama doomu ndey la invité ma yu mel nii foo ma ñëw teew. waaw ndax euh, dafa baax daal Ibrahima ko. liiru hmm. ma laaj la benn benn affaire face aux caméras tey nga nekk nga nekk taalibe face à la caméra du moins maa ngi jégalu nga ne taalibe sëriñ Touba nga nit ki ne taalibe Serigne Touba la ban comportement la war a amee ban jikko la war a amee lan la war a mën a taxawee pour pour nekk ambassadeur sëriñ Touba fu mu mën a dem ci àddina bi ban comportement ak ban jikko. waa loolu soo ko waxee sama xel naa dafa am fu mu naan yar. li mu def nii Ibrahima Diop li mu def nii. taalibe da koy comportement. waaw comme nii taal bi da koy koppatoo jubal tay juble jubal tey juble tey jëf at ndigal. ci loolu la taal bi war a ne. jub di jubal. jubal tey jubal. jub tey jubal jub di jubal. jëfe ndigal jëfe bàyyi tere. loolu la taalibe doxee. ndax su ma gisee lii rek sama xel daan yar sama waaja Modou Dieye Sène nii la koy defee daaru salaam sama rakk ji tamit Balla Gaye 2 nii la koy doxalee daaru salaam Aziz Ndiaye tubaarikàlla ah taalibe sëñ Babacar boobu taalibe sëñ Mansour boobu ah al taalibe al amim tubaarikàlla xool li mu def chaque année mu koy def dem tuubaa daf indi ay. su ma la dañ maanaam dañ leen a war a roy. Ah, ay royukaay lan yii nii ay royukaay la ku baax laa de dangay roy ci ñooñu soo baaxul nag ah yaa xam soo amee sa alal di ko def feneen nag yaa xam. lii di xam nga ni sëñ bi xam nga ni sëriñ bi da koy joxewaat. waaw <laughs> xam nga ni sëñ bi dañuy koy joxewaat da koy rek ah. tubaarikàlla ah, kon bu ñaanal Ibrahima Diop ndax tey ñooñu ko sëriñ di ko jël di ko joxaat tey jii ñaan boobu ñuy ñaanal sëriñ bi ah day ñëw de. sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér boo amoon tey parce que yaakaar naa ne tey ñun ñëpp mooy sunu kilifa loola yàlla dogal yàlla na fi yàgg te maanaam waaw ak xalifa Baye Fall yi ak kullu xalifa bu nekk ci réew mi rek. xalifa bu nekk ci réew mi. dañoo nekk ci màggal rek. waaye ñun amuñu fenn sens interdit. déedéet murit gi tijaan gi laayeen bi xaadir bi kër jàngu bi. waaw suñu mbokku chrétien yi. suñu mbokku chrétien yi. kër maam li maamu laay yoof. bu njaasaan amuñu fenn sens interdit ñu lay taalibe lan te murit ndigal. yàlla xalifa yëpp yàgg te yàlla defal leen jàmm. kontaan nan daal sunu xol daal seet na guy ñoo ngi ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm ñu yàgg koo fekke ñu yàgg koo fekke yàlla nañ ko yàgg a fekke ah, màggal gi daal tubaarikàlla ala daw me ne xoolal Touba man bu Touba tubaarikàlla damay dugg sama xol dafay feex ah foofu sama xol dafay feex sama xol dafay feex sama xol dafay feex yàlla na nu yàlla defal jàmm yàlla na nu yàlla defal jàmm yàlla na ko yàgg a fekke mais sama problème mooy jëm ak Lamine sooy wax farata rek ñu bëgg koo jaxal ah, noonu leen mel xam nga ñoom samay booy lan samay samay jarbaat lan waaye samay jarbaat lan waaye dañ maa yëpp